bala ngay teewlu vidéo bi mbind mu xonk mi ñu bind abonné cliquer ko nga abone ànd ak ñun ci mboolem programme bu ñuy dugal ci kër gi njariñ kase nga fiy jële incha allah discours tubaab naan avant de parler il faut il faut remuer sept fois ta fois sax doyul auzu <laughs> billahi mina sheytaani rajim bismillah wax dafa garaaw nit ñi di déglu de mm-hmm. te ñun sunu liggéey bii ñuy liggéey dafa dangereux liggéey bu doy waar la parce que liggéeyu wax la te wax dafa bëri accident yu ci am. mais gisoo ni parfois nit dina. wax wax dëgg maa ngi mhm. nit li ngay liggéey dañ ciy juum te léeg nga nga wax loo xam ni musiba naaru lay la. lu yëkkati xolu nit ku la bëggoon jéppi la. Mhm. ku la nawoon tegaat la ci suuf. Mhm. nga xeebu. nga yëkkati ay xol mën a yëkkati askanu lëmm. mën a yëkkati giiru lëmm. Hmm, sunu liggéey bi. moo tax te ñun li ñu doon ñii di ñu seetaan a tax ñu doon ko. dëgg te ñoom dañoo am ndogal ci ñun dañoo am wàll boo xam ne ñoom par la force dañ ko war a jël ci ñun. moo xam nga mooy lan. ñuy wax ñu ñuy critiquer ñuy def ñu ñuy critiquer. di di xool li leen ci neex ñu approuvé ko li leen ci naqari ñu wax ko ñii dañ koy defee par ay saaga ndey. Mm-hmm. ñii dañ koy defee par ay xas. ñii dañ koy defee par ay vidéo yooyu yëpp nag dañ koy jël nga dellowaat ko ci sa bopp amul ñu lay saaga ngay fayu. Mm-hmm. amul ñu lay xas ngay fayu amul yooyu yooyu bokkul ci game bi. Mm-hmm. xam nga lan mooy game bi. muñ tu remets sur tout sur toi parce que yaa wax yaa wax tayoo ko tayoo ko xam nga ko yow te yaa ko tey yaa wax mais wax ji daal génn na mais de toute façon ne blâmons pas ñi nekk ci ci réseaux sociaux yi di di di di di di commentaire parce que ñoo gis nga nit tamit xolam fi muy àgg ba mu mën a ba mu mën a wax yenn yi moo ko xamaa nit mënoo contrôler xolam. Mm-hmm. mënoo wax say wax ba pare après di contrôler xolu nit ñi. def nga dix ans vingt ans trent ans de carrière quarante ans de carrière bégal ñu bëri un jour benn trois secondes ñëw sa loolu lépp léegi nag boobu ndox tuuroo am bàq mm-hmm. mooy des déedéet am bàq desul dangay ngay rooti waat mm-hmm. waaw. parce que yow yaa yow yaa wax lu naqari say fan fans yow yaa wax lu lu lu lu waxuwul après léegi c'est pas parce que nit ñi duñ lay jëppi mais il faut il faut il faut il faut il faut aller de l'avant après nga ngay ngay ngay woddaat say wax say wax di gën a ne waat say wax di gën a waxuwaat waaw mais ñii dañuy assumer ñii di jéggalu ñii dañuy assumer ñii di jéggalu da ngay gis ko wax ni man li ma wax nii fi laa ko teg waaw donte nit ñi dañuy ne nga gis ñoo xam ne dañuy taxaw jéggalu. waaw ñooñu ñooñu ñëpp seen responsabilité ku nekk ak na nga koy defee. ñii dañuy préféré noppi. noppi effectivement fa laa doon ñëw ñii tontu. maanaam ni maa ko wax assumé naa ñenn ñi nii maa ngi jéggalu ñett yooyu rek moo am ci àdduna après li ci des nag pour li contrôler nit ñi ndax war nañ koo wax ak ñii li ñuy def correct wu la ñii nañ arrêté seen saaga yeeg ñii nañ nangam ak yooyu non yooyu.